j'ai entendu des mots très forts de Maurice Soudieck. c'est-à-dire. très très fort superfétatoire même genre calamité sax dafa mel ni dégg naa ko mais ce qui est superflu superfétatoire ce qui est calamiteux mooy ñu nekk ci dëkk boo xam ne nii dafa mel ne bu ñu jógee ci émission bi dañoo war a dem toj conseil constitutionnel ne on n'en a pas besoin parce que c'est sur les plateaux de télévision que des professeurs de sciences politiques qui ne sont pas des constitutionnalistes décrètent que lii mooy décision bi. ils n'ont pas décrété ils ont interprété. Euh, des dispositions Décret... selon leur entendement ne lii mooy décision bi. je fais l'interprétation de leur interprétation. <laughs> décrète que ne conseil constitutionnel wax na ko lu ne fàng Maurice dafa wax lu leer boo ne lu ne fàng kenn du ko jeex ba pare mu conclure ne mag yi amul droit à un autre mandat dafa leer te daf ne fàng kenn du ko jeex. ça veut dire que c'est disqualifié d'avance le conseil constitutionnel foofu laay waxee dafa am solo pour man bu ñu nekkee ay universitaire ku ci nekk wax sa xalaat interprété waaye dafa ma doon neex dans une république dafa am ay socles qui ne sont pas clivaux non clivants ngay rappeler toujours quoi qu'il en soit cette décision est du seul ressort du conseil constitutionnel la ma ca mënta wax la ma ca mënta xalaat changé wul dara la fait que kenn rek moo mën a dogal muy conseil constitutionnel loolu aussi dafay participer dans l'apaisement professeur parce que sénégalais yi nga xam ne nii xale yi dégg ñu naan dafa leer ay professeur d'université Macky Sall amul droit am beneen candidat te fàttali wuñu ne sénégalais yooyu ne leen ah ca cëppaandaw ga kat foog ñëpp ànd ak yar ak teey ndax ci république lañ nekk ci république bu civilisée lañ nekk la seule instance habilitée à trancher kat conseil constitutionnel la daf ma doon neex professeur d'université di fàttali loolu loolu nekkul fàttali sama bëgg-bëgg nekkul fàttali bëgg-bëgg Macky Sall mooy fàttali li nga xam ne nii moom moom mooy mu tënk suñu réew maa ngi fàttali donc tout le monde doit se taire euh, xeltukat yi ils doivent se taire tout le monde doit se euh, on doit attendre les les sept du conseil constitutionnel li ma wax dama ne ku wax sa xalaat ba pare am nga droit wax sa xalaat dama ne doon na rafet nga fàttali xale yi ñuy déglu quand même que ne quelque que soit ma position et mon point de vue gardons tous à l'esprit que la seule instance habilitée à trancher c'est le conseil constitutionnel loolu nuance la loolu rek laay wax ku ci nekk waxal sa xalaat ba pare mais rappeler loo xam ne ni du sa xalaat cas bi ma lay jox parce que dañuy yëngal nit ñi pour rien procès Mame Mbaye Niang euh, Sonko waxoon naa koo ma ne leen l'opinion n'est pas partie civile dans un procès jarul ngeen di sonal nit ñi ñu bëri mën nañ am sax mbetteel effectivement pendant des semaine ñu naan waaw la seule finalité du procès avec leur justice dans leur poche avec leur juge au ordre ñoom ñoo doon wax loolu de mooy c'est d'empêcher à Ousmane Sonko de se présenter mais def nañ procès ça fait picc mais coow loolu yëpp daf ko fa jaroon est-ce que su boobaa bu ñëpp taxawoon fàttali nit ñi ne l'opinion ne pas partie civile dans un procès fàttali nit ñi ne dans une république dafa war a am ñoo xam ne ñoo war a atte te ñoom rek a war a atte kenn warul def le procès wala joxe la verdict avant l'heure mais mais mais, mais Thiam je vous fais un petit rappel historique qui ne va pas aller très loin en 2011 2012 vous avez écumé les plateaux de télévision pour contester la candidature de de de de de, en tant qu'analyste vous n'avez cessé d'écrire sur euh, l'illégalité de cette candidature. C'est absolument faux. Pourquoi vous donniez le droit vous voulez donner ce droit-là à, à à à des à, à gens euh, qui sont euh, spécialistes en la matière. C'est ah Je prends à témoin votre collègue journaliste Pierre-Édouard Faye et je vous enverrai la vidéo qui date de dont j'ai copié quand Pierre-Edouard Faye m'a interpellé connaissant ma position très très dans Weekend Magazine vous me laissez terminer Maïmouna moi je parle de faits sortez-moi un article un numéro d'une chronique que j'ai écrite sur laquelle je disais que Wade n'avait pas le droit de se planter c'est impossible si vous la sortez je vous donne 100 millions ou je vous vends ma ou je vends tous mes biens je vous les donne c'est impossible Maïmouna une journaliste je vous la sortirai quand vous sortez pour cette question je suis à l'aise Pierre-Édouard Faye je suis très à l'aise je fais partie des rares acteurs de cette classe politique membre de ce pouvoir à être autant à l'aise sur cette question vous m'attendez une perche merci en Presse Afrique de Ibrahima Lissa Faye a même fait un article sur ça qui est toujours en ligne Pierre-Édouard m'a posé la question de savoir est-ce que selon vous Wade droit à un mandat je lui ai je m'interdis de me prononcer sur la possibilité offerte à Abdoulaye Wade de faire un autre mandat ou pas cela ne relève je ne suis pas habilité seul le conseil constitutionnel est habilité. il nous faut être Gadio, républicain ci wetu Cheikh Tidiane Gadio il faut être c'est le principe que vous avez défendu. vous confondez deux choses là j'étais invité en tant qu'analyste je donne mon point de vue Cheikh Tidiane Gadio fait un travail de coordination de communication de campagne mon point de vue a toujours été j'ai parlé de république des responsabilités en 2011 j'étais très jeune et j'ai dit seul le conseil constitutionnel est habilité à se prononcer sur la candidature d'Abdoulaye Wade et je voudrais continuer poursuivre là où j'en étais euh, fermer un peu la parenthèse ouverte par Maïmouna centrer sur moi-même alors que ma personne n'est pas la plus importante même si elle est très élogieuse parce que j'ai eu une très belle posture dont je suis fier alors j'aimerais que les analystes te wax naa sama xalaat ci mandat bi wax naa sama xalaat ba xam Macky mun na lii mbala mënul lii waaye muy tënk toujours nag di fàttali Sénégalais yi ne ah bu ñu demee ci cappaandaw ga kenn rek moo mun a dogal te bu dogalee ñëpp dañ cee war a ànd muy conseil constitutionnel gis nga analyste bu waxut loolu demee bu conseil constitutionnel jëlee benn décision bu jëm gauche mbala bu jëm droite amay xale yu wàcc songu conseil constitutionnel damay jàpp ne am nga ci part de responsabilité. Hmm. man l'opinion n'est pas partie civile le plateau n'est pas un tribunal et l'université n'est pas le conseil constitutionnel je suis désolé et ça me fait mal de le rappeler à d'éminents universitaires ça me fait mal de le rappeler à d'éminents universitaire ce qui est catastrophique c'est ça c'est qu'on veuille qu'on nous oblige à avoir un débat artificiel avant l'heure qui ne repose absolument sur rien qui ne pas la priorité du Sénégal et des Sénégalais. Ah bon. aujourd'hui la preuve. en wolof Thiam. priorité Sénégal ak sénégalais yi mooy xale yi nan la ñu amee xëy président wax na ko sànq Pape Malick duñu na ko ma ñëwaat ci xam nga président bi mu ñëwee dafa dem am solo balaa Macky Sall di falu président yi fi ñëwoon ñëpp li ñu doon wax programme de document de réduction de la. pauvreté de la pauvreté lañ doon wax mu def changement de paradigme ñëw il parle d' émergence. Sénégal émergence foog nga poser un diagnostic les préalables waxoon na sànq industrialisation ci tontu na ko ci préalable électricité nekkul sax objectif en tant que tel préalable la condition sine qua non parce que nan ngay industrialiser bu nekkee amoon sax courant pour taal yi <laughs> entreprise yooyu. ngay jël pour ñu def transformation locale le coût de l'électricité day plomber le coût de leurs produits les coûts des facteurs de production loolu ñëpp xam nañ ko donc mu am une vision très claire ñu teg ay préalable régler problème mu courant bi problème mu pont yi buñ koy régler mais day favoriser la compétitivité de ces entreprise la et de ces industries là d'accord ma ci li Bamba doon wax sànq gis nga c'est vrai pétrole bi ak daal bi chaîne de valeur la c'est pas effectivement les revenus directs rek yi nga xam ne nii moom lañ ci tirer directement y a toute une chaîne de valeur à valoriser mais dama bëgg nga fàttaliku lenn first gaz ak first oil 2023 fin 2024 bu ñu yeggee ci ñaari first yooyu ndaxte fin 2023 la ñu njëkk am baril de de pétrole 2024 ñu koy wax first first gaz première baril de gaz bu ñu yeggee fin 2024 est-ce que xam nga ne déjà rek y a un effet essentiel en économie cest dire la balance commerciale bi Sénégal cesse d'être déficitaire et devient excédentaire automatiquement xam nga lu tax parce que ñun dañoo nekk dëkk boo xam ne nii li ñuy jënd bitim réew dafa bëri te li ñuy jaay bitim réew bëriwul déjà pétrole bi ñuy génne fii Sénégal moomu ci lépp entreprise yi koy exploité moom une partie déjà ñoom bu ñu ko transformé fii rek mbala ñu jaay ñu ko mbala ñu jaay ko suñu raffinerie yi dañu koy jaay biir Sénégal jënd wuñ ko à l'extérieur ñu commencé ñun sunu sunu sunu courant bi ñuy togg doon ko toggee petrole bi ñuy jëlee bitim réew mu jaar ci ay bato def ay weer ñu am ko directement fii di ko toggee fii directement nekkatul ay devises yu dem bitim réew ay devises yuy des fii la. donc ça aussi c'est un changement essentiel bu ñu war a intégrer bien que d'accord naa ne chaîne de valeur effectivement war nañ ko bàyyi xel mais loolu day ñëw automatiquement xam nga lu tax c'est-à-dire que l'économie fonctionne aussi sur la base du besoin. am na ñoo xam ne nii am nañ yenn doole yoo xam ne mën nañ anticiper def prospective mais le sénégalais lambda bu yor benn petite structure qui fonctionne un chiffre d'affaires peut-être de cent millions est-ce que mën na gum jël risque ne eh, xaaral rek ma xalaat imaginer d'un seul coup ñu ne la ñuy soxla mais il s'agit de l'accompagnement de l'État mais bien sûr la Khadim di wax d'accord l'État de soutenir je le secteur privé ñu mën a préparer wu à l'exploitation de ce pétrole dama ko loolu ngay def l'accompagnement de l'État se fait par étapes parce que njëriñ la la fekke lan lañ doon wax je pense que le premier pari qu'on a réussi que les gens ne saluent pas suffisamment on parlait avant de malédiction du pétrole, mais aujourd'hui Sénégal moom buy wax chaîne de valeur y c'est que on ne parle plus de ces craintes là on parle de bénédiction du pétrole il abonde dans le sens d'optimiser cette bénédiction du pétrole mais ça veut dire quoi qu'est-ce qui a été fait en amont ça veut dire que de gestion de nos ressources pétrolières et gazières qui a stabilisé tout le processus rappelez-vous problème yi yàgg am ñun ak Mauritanie s'il n'y avait pas un vrai leadership un processus de sécurisation ñun ak Mauritanie ñu bokk gaz bi gaz bi nekk presque suñuy eau territoriale mais du ñu ñëw gérer ko a ko avec leadership ne yéen a moom màcce ñoo moom màcce soxlawul sax ñuy xool su euh, suñu territoire fan la nekk ak fan donc y a tout ce dispositif d'abord la priorité c'est ça njëriñ la nga fekkee stabiliser le processus de gestion l'implication des ténors du pétrole et du gaz ñu nangu ci def des centaines de milliards pour ñu commencer jot pétrole. Mm-hmm. tout en intégrant le fait deuxième phase bi. tout en que effectivement step by step on va aller vers ça et je vous rassure qu'on va aller vers ça mais dañuy optimiser maîtriser la chaîne de valeur gérer les risques en termes de priorité li ci des nag c'est dans le temps nee nga ko wax nga ko première année bi nee nga 53 milliards mais il faut ñu identifier les les enjeux c'est d'abord que la production démarre dans de bonnes conditions de paix de sérénité de stabilité d'accord Thiam les euh, enjeux pour terminer deux heures de temps pour reprendre la parole les enjeux maa ngi daaneel foofu les ah. enjeux mooy que ne ingénieurs yi ñuy former biir Sénégal institut di pétrole et du gaz loolu tamit c'est de l'anticipation c'est l'accompagnement de l'État li ñu waroon a fay bu nekkoon ci beneen dëkk la ñu dem di ko jàngee ñu ci bëri duñ ko mën a fay état dafa subventionné. on forme des ingénieurs mais on pré on ne prépare pas de grands majors à prendre en charge euh, ces besoins qui vont être générés par l'exploitation. il a fallu que Maïmouna ah. sorte d'une école de journalisme def pratique am leadership am volontarisme am accompagnement tey nekk un major un magnat dans la presse sénégalaise ce sont ces ingénieurs là très tôt formés très tôt impliqués dans les plateformes très tôt impliqués dans les négociations qui peut-être comme baarataal ni mu defoon avec société tubaab bi mu doon liggéeyal ba mujjee moom société bi ñu jaay ko ko. mu nekk advenu de baarataal voilà finalement il est devenu autre chose mais au moins. Ah, c'est ah. modèle de réussite parce que il était ingénieur à la base. <laughs> donc étape par étape la état du Sénégal di def nañu saluer loolu Sénégal Mauritanie ñu bokk gaz loolu rek tiitaloon nañu bëri ñu ko Mauritanie changé sax régime dara changé wul.